ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak suñu programme leeral TV leeral FM leeral point net ñu leen di digtal lépp lu jëm ci wàllum xibaar ngir leeral leen ko encore une fois gën leen jegeel ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum xibaar ci fànn yëpp ci bëpp gox boo xamante ne daal na lu jëm ci wàllum Sénégal waaye sax ci bitim réew mbette la 12000 kilo ñu dellu siwaat tey dalal docteur Assane Ndiaye mu nekk maire bu commune bu Lambaye bokk ci li nga xamante ñoom ñooy membre bu parti réew mi bett la ñu dalal la tey suñu plateau 12 minutes chrono. jëf euh, Alamine Senghor ñu ngi lay sant ci dalal bi di nuyu waa kër gi yëpp di jiital ci nuyoo bi nag euh, kilifa euh, kër gi. Hmm. di wax ne vraiment am nañ contentement ñëw ci seen télé bi. pour seq ak yéen waxtaan di ñaan euh, vraiment tàmbali ko bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah. macha allah docteur Assane Ndiaye ma fàttali moom mooy maire bu commune bu Lambaye bokk ci parti réew mi daañu wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci xew-xew réew mi jamono jile waaye laataa bu ñu ñëw une petite précision docteur je le dis encore une fois au devant de tout le monde parce que vendredi je l'avais dit au devant de tout le monde mhm. bi ma invité kon kenn koo xamante ne bokkoon na ci ñi doon xëccoo ak yow maire bu bu Lambaye Medoune Lo. Mhm. je l'avais dit que ñun on ne fait pas justement dans justement lépp lu jëm ci wàllum xeex nit wala entre autres mais on fait dans la clarté leeral li nga xamante ñoom ñoo wàllu jëm ci wàllum xibaar moo amoon kaddu yoo xamante yëkkati woon na ko teg ko ci sa kaw ndodd moo tax justement moom moo waral sax raison sa présence tey jii suñu plateau 12 minutes chrono alors est-ce que ni mu ko waxee woon noonu la demee dans la commune de Lambaye maanaam maire bi defu fa dara Euh, jërëjëf euh, vraiment ñu lay sant di la gërëm alhamdulilah parce que nii rek la mënoon demee ko parce que nit wax nga euh, dëgg la nungul ko li mu wax mais wax ji mu wax ci kenn nga contacter kooku pour mu ñëw leeral defe naa télé beeg rajo bi wuyu na turam. Hmm. parce que dañ ne leeral donc il est de mon devoir comme wax na ne xëñ na. depuis ma ñëw def naa fi deux ans et quelques defuma dara. mais hmm. loolu defe naa xel nangu ko te ñama jiite muy waa commune de Lambaye war nañu mën a xam ne man def naa fa parce que bi ma ñëwee ba léegi maa ngi ci maa ngi def électrification maa ngi def euh, euh, ay autonomisation des femmes parce que hmm. jigéen ñi comme suñuy waajur lañu suñuy doom lañu suñuy soxna lañu suñuy rakk lañu ah euh, ñu xool ne dans les communes rurales vraiment jafe-jafe am na fa a commencer par le Sénégal mais rawatina nag dans les eh, euh, dans les zones rurales ma ñëw defoon ci sama programme ay ak acte yoo xam ne dama waxoon ci benn ponk autonomisation des femmes ci yooyu laa nekk heureusement en dehors du budget ma am ay partenaires yoo xam ne benn euh, mine pour ne pas le citer. Mm. Garden Bissi ñëw di ñu jàppale. ba chaque année au moins dinañ jënd ay moulins à mil ay périmètres maraîchers ñu koy def ah ak yeneen ak yeneen pour jigéen ñi donc euh, loolu vraiment buñ ñu nee defuñu ko en plus de ça ñu ngi def ay clôtures d'école les gens peuvent ma mën nañ xam dëgg la walla du dëgg at mu jot bu dee benn école aussi dinañ ko def parce que aussi xale yu am fukki at ak benn vraiment nga bàyyi leen ci benn li ñuy wax ndànd foy foy noonu nga xam ne ñi nga xam ne ànduñoo ak seen xel di fa jaar mala yi di fa jaar et cetera mën naa am accident ñu xam ne xëñ na état mënul def lépp mais ñun ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan. pour mm. def yooyu am na yeneen ak yeneen. sur le volet sanitaire lan nga fa def. sur le volet sanitaire aussi. au niveau des fonds de dotation maa ngi leen di jox loo xam ne xëy na xeeb naa ko mais mm. chaque année boo demoon tey ICP euh, au niveau de Lambaye l'ICP de Lambaye peut en témoigner réfectionné nañu foofu euh, parce que bu doon taw ak yenn kii yi ña fa nekkoon dañ doon am ay gàllankoor mm. léegi loolu féete nañu gannaaw mm. seen ambulance corbillard je l'ai loolu yëpp mën nañ ma témoigner dañuy continuer di di di di def yeneen. yeneen poste de santé yi. comme Lambaye dispose de trois postes de santé. oui mais est-ce que les villages environnants de exact foofu même les villages environnants de Lambaye am nañ ay cases de santé yooyu déjà def nañ matériel yi nga xam ne matériel bi ma nga fa peut-être il reste am na trois cases de trois cases de santé yoo xam ne dañ ko defoon. Euh, mais amagul ay euh, ñu fa nekk di faj. Hmm. mais on est dans le recrutement parce que ku ne xam na ne aussi ah euh, budget yi demeewul noonu mais ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan ba am nañ yaakaar ne ren comme matériel. beeg yëpp dem ñaata ngay am. Euh, on a dans les trois cent quelques millions. d'accord et les trois cent quelques millions là là est jàpp nga ni jamono ji ña nekk ca Lambaye mérité wuñu plus li ngay wax. waaw est-ce ngi liggéey pour subvenir pour. encore une fois projet bi nga xamante ne yaa ngi koy wax moom nga tegoon. sur la mhm. table pour gagner la mairie. face à des ténors. parce mhm. qu'il faut le amoon na ay yu bëri gox yu bëri yoo xamante ne Yewwi Askan Wi ñoom fi ñoo gagné. Mhm. bii Benno Bokk Yaakaar. mais malgré tout liste parallèle nga demee mais est-ce que nga ne la commune de Lambaye ne mérite pas plus. si la commune de Lambaye mérite plus mais aussi il faut fair un budget réaliste. c'est-à-dire. boo xam ne xam nga mën nga jël nga ne je vais faire huit cent mu leer la na loolu doo ko recouvrer parce que budget bi aussi ah du kii ba lii génn ngay ama ah, li ngay recouvrer te ñun marché bi ñu am c'est pas ça hmm. bon peut-être euh, Dieu a fait am nañ benn euh, kii euh, benn miine bu nekk foofu mine de phosphate bu fa nekk hmm. di ñu jox benn un certain montant boo xam ne dinañ ko def mais boo xoolee recouvrement yi demeewul noonu parce que àll boobu ñi koy liggéey mhm. yéen a ngi liggéey pour ce que ñoom li ñuy wax responsabilité sociétale environnementale ñu koy respecté waaw euh, ñu ngi koy bon je dirais respecter c'est beaucoup dire parce que de un lañ ñu jox nous on est en train avec trois maires euh, dont le maire de Lambaye moi-même mmh. le maire de ba Garage et le maire de Gawane ñoo seq mine bi donc euh, ñu ngi ñuy am luñ ñu jox loo xam ne on est en train de voir avec des professionnel yoo xam ne euh, vraiment dinañ càmbaral ñu affaire bi pour ñu xam parce que ñun avant ñuy ñëw lañ doon joxe peut-être euh, yokk nañ ko yokk nañ ko bu baax. Hmm. il donnait environ ay vingt millions léegi dem nañ ci ay euh, ñaata vingt millions léegi dem nañ ba soixante quinze millions. Hmm. donc mais est-ce que réellement parce que nous on est on n'est pas du métier donc il va il va falloir ñu am. Euh, ñu ñu jàppale ñu xam métier mi xool ba xam est-ce que comme ni nga ko waxee hmm. ah, ñu ngi ñuy nax walla naxuñu ñu est-ce que li ñu war a jox loolu la war a ëpp na ko loolu nag maak sama nattangoo maire yooyu ñu ngi ciy dox parce que defe naa ñoom phosphate bi ni muy demee ak hmm. phosphate ni ko euh, àdduna bi soxlaa donc war nañu xam ba xam réellement est-ce que ñoom lañ cay am ñu xam seen chiffre d'affaires parce que pour le moment xamuñu chiffre d'affaires bi li ñu loolu loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy ci lu jëm ci wàllum désenclavement loolu tamit jafe-jafe la boo xamante ne mu ngi ci seen gox maanaam ay yoon yoo xamante ne mën nañoo am accès le <laughs> plus souvent même bu ñu bëggee transporter ay malade dafay mm-hmm. indi ay mm-hmm. jafe-jafe mm-hmm. beneen bi mooy est-ce que coolu suuf bi ñuy wax ci Lambaye ñu bëri ñu ngi naan parfois les maires sont impliqués je ne dis pas que loolu moo am parfois les maires sont impliqués est-ce que cette situation Lambaye est épargnée ou pas Euh, juste pour revenir sur. Euh, De, euh, première question première question bi. désenclavement bi boobu c'est réel. parce que Lambaye boo xoolee Lambaye ba mu dee Lambaye ba léegi ak tout ce que li Lambaye dayoo Lambaye bi te ba léegi distance bi nga xam kii bi nga xam ne moo seq entre ma ba Lambaye hmm. jëm Kër Sambakan boo ko demee Lamb ma ba Kër Sambakan c'est vingt ñaar fukki kilomètres ak juróom. boo ko jëlee làmbaay ndàngal ma ba làmbaay say juróom-ñett kilomètres juróom-ñeent te hmm. boobu ba léegi mënuñu am euh, tali loolu boobu man day ba ma ñëwee ba léegi ci lay xëy ci laay gont xëy na nag euh, di euh, wolof njaay di wax naa ndar xëyut sotti fan fan fan la toll jamono non non non fi mu ne ñu ngi si ñu ngi si parce que boobu ba léegi man maa ngi yéeg ko wàcc on ñu ngi wax ak waa FERA ak yeneen kii chaque fois bu ma demee il ma dañ may wax ne ma budget bi hmm. ah moo des tuuti mais ficelé nañ euh, le projet donc euh, ñuy ñuy am yaakaar hmm. beneen bi euh, moo doon problème mu suuf si hmm. loolu aussi problème bu rëy la parce que ñi ma fi fekk ñi ñi ma jiitu bi ma ñëwee man am na nu ñu daggee kii yoo xam ne dafa xawoon doy waar. Hmm. moo tax man bi ma ñëwee ba léegi à part des pro euh, kii des projets agricoles. Hmm. loolu laay def mais pour à titre d'habitation peut-être sama prochain euh, séance euh, kii réunion communal bii ci mois de mars bi laay commencer dagg mais bi ma ñëwee ba léegi dagguma suuf parce que. ni suuf si demee woon ni suuf si demee woon oui. non ni suuf si demee woon la. parce que dañuy ñëw nga gis ñu ne kii ne am na kayit fay na. mais amul kayit wala maire bi ñëw signé rek joxe que la signature du maire alors que l'autorité sous-préfet bi dafa war a signer. est-ce que audité euh, pour le moment. maa ngi doon xool mais audité xam nga problème yu bari a fait que audité wu mais dama ko def en stand toog tuuti di xaar di càmbar. sama ndaw yi léegi mu jeex nii. non non des na jeexaguma euh, nekkaguma à mi parcours sax. mais deux ans et quelques mois des na trois ans. on vient de on était en janvier. on est an en kii on a déjà parcouru deux ans ou mais mais mais bon boo nee audit audit audit au sens euh, propre du terme defuma ko. parce que peut-être boo nee audité da ngay jël un cabinet et cetera. mais yaa ngi mais j'ai pas mais maa ngi maa ngi kii di wax ak euh, kilifa ya fa nekk di wax ak chef de village yi di wax ak ñama mën a waxal pour ci njëkk ak teraanga parce que aussi on a nos réalités. bien sûr bien sûr on a nos réalités. bien sûr bien sûr donc moo tax am na loo xam ne lu bari te dëkk yi nga xam ne. nekk nañ fa. Hmm. suuf si xaw lëj noonu. parce que hmm. foofu boo xoolee nag ñetti dëkk rek. ñoo am problème boobu moo tax dama ne pour le moment nañ teg ñetti dëkk yooyu ah mais jublu ci yeneen yi en attendant may am lu leer. parce nag noonu rek la mën a dem. mais jàpp nga ne maire yi fi nekkoon ñoom am na loo xamante ne def nañ ko suuf si. te non si moom loolu loolu moom. te jaarul yoon euh, loolu moom euh, du ne jaarul yoon. Hmm. mais papier yañ am. parce que tey dama lay wax euh, sëñ Senghor. Hmm. da ñëw am na ñoo xam ne dañ naa ne fay nañu. te amuñu kayit xam nga loolu c'est pas normal. ah kon ñii ne la fay nañu mais ah, xamuñu fu seen terrain nekk ah. d'accord loolu benn jafe-jafe la loolu jafe-jafe fi ñu jeexalee ci làmbaay wax nga sànq ba léegi yaa ngi wax ci jigéen yaa ngi wax ci li nga xam ne yaa ngi ko def mais mësuma dégg déggaguma nga wax ci ndaw yi quand on situation bi xew jamono ji ndaw yi désespéré ba tax ñenn ñi di jël gaal gi. est-ce que jàppoo ne yéen tamit jot na ngeen def programme boo xamante ne xëy na dina jàppale ndaw yi ba ñu mën a toog ci réew bu Sénégal gëm ne toog fi tekki fi mën na ne. non gëm fii gëm loolu loolu moom lu am lu lu mën a nekk la mais aussi xam nga man euh, sëñ Amine li ma mënul comprendre mooy ndaw yi xam nga dañ ne dañoo bëgg a tekki. Hmm. mais am na loo xam ne xëy na nag il faut nit ñi dem parce que tradition la. Sénégal tradition la boo xam ne. dafa am dañu am tradition di nit ñuy génn di dem di di di même dem signifie nekkul ne rek da ngay génn réew mi mais mën nga jógee Lambaay dem dem euh, Kajoor et cetera wala nga jóge kii dem Saalum. Hmm. donc mais phénomène bii ñu gis tey man benn jàngat rek laa ci am. parce que hmm. tey ay Barça Barsaq ay euh, Nicaragua. Hmm. mais gis nga xaalis bi ñuy kii def. tey da ngay ñëw benn al amin day ñëw jël cinq euh, cinq millions def ko ci kii mais cinq millions yooyu bu toogoon ah, mais mën na ubbi dara mais ñoom xale yi li ñu gëm mooy génn génn. te ku ne xam na ne amul mbiru économie boo moo leen tax a génn. non non non si si si si si. non économie bi ak bëgg tekki gi. parce que aussi dañoo nekk li ma la doon wax naa la les réalité sénégalaises font telles que tey da ngay gis euh, ku nekk sa koñ dem ngeen doon nekk. tey mu dem ñaari at ñëw tabax étage xamul lu mu def ba am ah waaw voilà exactement hmm. influence ak euh, bëgg ëllëg nga tekki su ko defee say mbokk seen yaay sa yaay walla keneen hmm. dina tekki takkaayam jaay pour nga dem mais te ku ne xam ne ne tey crise bi fépp la nekk liñ tuddee woon Eldorado la nga xam ne fële boo fa demee tekki tey man j'ai fait les États-Unis di dem di ñëw mais ña fay jóge ñii jóge fii di dem ñiy jóge fii di dem. Hmm. ay genre càq-càq la ñu yor. mais est-ce que crise bi yéen politiciens yi waraloo leen ko genre càq-càq yi ngay wax aussi est-ce que yéen en encadré ngeen ñi fi nekk ci biir réewu Sénégal malgré que ñoom bu ñu demee li ñu fay liggéey mën nañ ko liggéey ci biir réewu Sénégal mais est-ce que avantage yi ñu fay am mën nañ ko am ci biir réewu Sénégal est-ce que les politiciens jotul tamit ñu xalaat. waaw xam nga politiciens yi li ñuy wax euh, wax ay indi wax euh, comme ñun man euh, fi ma nekk di liggéey nañu li ñuy wax. Euh, kii euh, politique national de migration. Hmm. waaw direction bi may liggéeyee ñoo ko def en 2017 de 2018. boo hmm. xam ne chef d'état yi ñoo ko waxoon au niveau de l'UA. nañ mettre en place euh, des politiques nationales et pour la première fois Sénégal am ko. Hmm. ba dem ñun liggéey nañ ci liggéey ci liggéey ci ba valider ko. et puis de manière ñëpp bokk ci en société civile immigré yi ak ñeneen ak ñeneen. couche population yëpp ñu def ko de manière synergique affaire yooyu bi ko defee euh, dem ba ci biir xëy na sooxe woon na pour ñu def validation politique bi parce que boobu amuñu premier ministre mais bi mm. premier ministre ñëwee quand même euh, euh, nañ ko te defe naa euh, dinañ ko doxal fi mu ne peut-être euh, c'était pour cinq ans mm. xëy na jeex na mais dinañ ko defaraat mais li ma la mën a wax daal mooy vraiment en matière de kii peut-être euh, les torts sont partagés. xëy na état def na lu bari nag. mais ah bu gën a def encadré gën a encadré. Hmm. def ay garde-fou xëy na yu bari mën na mën na mën na bañ a am nii mu amee. bien sûr fi ñuy jeexalee mooy ci wàllu politique gis nañu li xew ñu dàq élection bi fii def lii ak lii ak lii jamono ji li nga xam moom mooy xew. Mhm. nga bokk ci parti Rewmi. Idrissa Seck mooy seen leader mooy seen candidat. Mhm. Idrissa Seck mooy sa candidat non. effectivement d'accord. pourquoi le silence de Idrissa Seck est-ce que yéen a ngi posé wu question lan moo waral ne tekk non xam nga le président Idrissa moom euh, il nous euh, euh, yàgg na di def loolu. donc des fois day non des fois non non non ñun jaaxaluñu parce que xëy na dara ñoru fi bañ koy màcc. te am na loo xam ne. Ah, tey Idrissa non non déglu ma président Idrissa fi mais xam nga dafa am loo xam ne bu waxee ñu ne dafa bari wax. Hmm. bu noppee ñu ne du tax waxul. oui mais mais dafa am loo xam ne. mais réew buy tàkk est-ce que jotul. non non non tàkkul a a parce que aussi bala ngaa wax bala bala bala ngaa mën a wax xam nga fi mu ne réew mi dafa pëccëxoo te aussi pëccëxoo boobu aussi peut bu wax jotee dana wax. c'est pas encore trop tard parce que boobu ba léegi. da ngeen pour man. pour man xaw ma lu nekk ci xelam mais pour le moment aussi fi mu ne nañ dérouler nañ xaar peut-être fii su président waxee. xëñ na parce que on ci ligne droite bi ah. bu waxee xëñ na am na noo xam ne dina ko def. te waxul mais kera bi mu nee du dem yónnee na kii am. wax na du dem mandataire am du dem mm. wax li tax demul et cetera. parce que aussi président Idrissa rek nga baal ma. Mm. dañuy wax ne dafa weexu dungu bu nee tooy na rek ñi lay wax dal ci kawam. kii na moo tax léegi bala moo wax. xëy na dina ko seetaat et puis jox nit ñi. Euh, population bi aussi leçon boo xam ne. Mm. tey bu ñu demee ba nit ñi wax xam ne war naa wax. moom dana wax. d'accord parce que nit ñi la yaakaar. loolu nekk loo xamante ne lu am solo mais on verra euh, si nga xam ne mooy jëm situation bi ndax Idrissa Seck exactement dina bokk ci élection bi bu fekkente ne tëggat nañu ko déjà sax est-ce yow da nga d'accord ñu tëggat élection bi wala ñu bàyyi ko nii. bon c'est-à-dire le processus en tant que loolu ça m'engage que moi. oui oui franchement. Oui. Euh, pour man mën nañ ko bàyyi nii. d' accord mën nañ ko bàyyi nii. d' loolu nekk loo xamante ne lu am solo la foofu la ñuy jeexale euh, docteur Assane euh, nekk na loo xamante ne bett la woon ñu leeral ko je le rappelle encore une fois et je le précise c' pas pour tontanter mais c' justement dans la logique d' apporter des ci li nga xamante ne nañ ko mbett la woon ñu dalal la ñu plateau. merci beaucoup c'est partagé mm-hmm. euh, di leen sant di leen gërëm di yàkkamti amaat ak yéen beneen jataay di sant ñëpp di gërëm ñëpp. incha allah du yàgg du yàgg dara incha allah dinañ ñëw certainement vers Lambaye pour euh, devoir de visu li nga xamante moom moo fay xew bien sûr donc euh, foofee ca diwaan bu Diourbel ak notre correspondant qui est là-bas donc moom Djibril Khoule du ñàkk incha dina déplacé wu ñëw foofu pourquoi pas même encore une fois leeral en que tel ñun ñu déplacé wu ñëw c'est toujours important lépp la ñuy leeral. ci bépp gox foo xamante ne nekk na ci biir réew bu Sénégal wala sax ca bitim réew ci bépp fànn du ñu bàyyi dara mbokk yi salaamaaleykum